الشيطان الرجيم ñu ngi sant yàlla di julli ci bàyyi lay mi xayru xalqillaahi sallallahu te di ñaanal sunu xalifa seydina muhammadul muxtaar mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal itam bépp rakkam mu ñu yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal mboolem ahlu bayti rasul euh, di dugg ci li nga xam ni moo nu fi dajale ginnaaw loolu nag dañuy sant presse sénégalaise yéen ñi fi teew bii mënoon ngeen ko gàntal lii day wane ni seen réew moo leen ñor kon li ñu jàngal ci yar muy adab lu jiitu ñuy gërëmaat kenn yéen la ñuy daal di gërëm ci seen teewaay di leen wax mars coono kontaan nañu ci euh, teewaay jotaay bii nag li ko mooy man mii toog maay conservateur u bërëb bu yonent yàlla Isaa bii di Seydina Isaa Ruuhu Laahi comme ni ko waxi léegi defe naa ni sama ñëw fii bi ma fiy egsi ak bi yëf yi amee li nu ma xibaar lépp ak lépp luy kilifa itam woo ma ci téléphone mooy jëf ji nga xamante ni neexul tudd bi mu fi amee képp kuy saxaaba Seydina Limaamu gëm bàyyi laay te yaakaar ko alayhi salaatu wasalaam foo toll ci Sénégal ak bitim réew woote nga ñi jot nan ma ñii jotunu ma kenn ku ci ne jooy nga lii xew li xew nag lenn la bërëbu yonent yàlla Isaa bi alayhi salaam li tax nit ñi war a mën a ñëw fii te mënoonoo distinguer ñàkk distinguer dafay jur la nga xam ni mooy ab musiba ci am réew maanaam ràññee ndax Seydina Isa minu minu gëm te yaakaar ko tey ak ëllëg comme ni ma àdduna bi yëpp di dégloo kenn ku ne téye sa guumu pas-pas te fowe woo ko laayen yépp nag am nanu xol bu jeex tàkk ci jëf ji nga xam ni takkadeer yi jëf nanu ko fii ci bërëbu Seydina Issa Rouhou Laye jëf yi mooy ku xam maam Seydi alayhi salaam doxinam waxinam yaram njàngalem la ci jiitu mooy tabaxal nuy école ngir xamal nu tabaxal nu jumaa ngir ñu jaamu yàlla kon dëkk bi statut spécial la am muy titre foncier di dëkku diine comme ni ñu ko ràññeewee comme ci yeneen dëkk yi nga xamante ne am na lu ni mel. ci biir loolu nag am la nga xamante ne nii euh, dab nanu muy bu ngeen ma déggee ni may waxee dafay mel ni dama tëlëb wax fekk nit. léeg-léeg mbir day am sama dund day mësuma woon xalaat ni doomu aadama walla ku yàlla bind dina jéem a doyadal ki tëdd fii di Seydina Isa man day laay maxtaar mësuma ko woon xalaat ci sama dund waaye nag lii nuy waxtaane nii mooy li nga xamante ne nii mooy li nu intéressé ñun waa ahlu laay boo déggulee ahlu laay mooy ñun waa laayeen yi mooy li nga xam ni musul xew ci Cambérène musu fee am Cambérène musul miin lu ni mel muy takkadeer yi nga xamante ni na lu dugg si fii ci Cambérène di doxale ni mu leen neexe di jàmmarloo doomu dëkk bi walla may laaj ni xanaa sax xale boo ko dee dàq ba mu daw ca wetu baayam walla maamam bul xoolati la mu la def xool sa maam ja walla nga xool sa baay ba bu dee yar la ak teggin ñi jëf-jëf ju ñaaw ji nag mooy force de l'ordre yi wax dëgg yàlla duma ni xamuñu fi ndax nag al isaaratu tat fii ku xool bërëb bi ni mu mel boo fi jaaree rek sa oto yaa xam dangay dox di xam ne fii am na lu fi ne kon fii ku fi def dara yaa ko tey ak teyef la ndax nag dafa am la nga xamante ay mandarga la ci jotaay bi pour ñu euh, leeral ko mooy jël seen lacrymogène yooyu yu bon yooyu yu yées yooyu xalaatuñ ko fenn lu dul di ko dóor ci bërëbu Seydina Issa Rouhou Laye ñu dóor benn ba ca kaw koppol ba boo gisee ñu indi lacrymogène bi mi ngi nii lii yëpp ñoom ñoo ko dóor ci coupole bi boo déggee coupole bi mooy li nga xamante ni moom la ñuy woowee comme sooroor maanaam fëleenu ko dóor defe naa ni kooku li mu def xam na ko kon bëggoon jot pas-pasu jàmbur la waaye nag ku ñu bëgg jot ci maam Seydi di jot barki Seydina li ma ay caaxaan nag kenn duñu ci musa jot ndax nekkuñu ci wax ak yéen ay jëmmaleen yi nga xam ne xëyunu xëy rek toog ci bërëbu Seydina Isaa bi alayhi salaatu wasalaam am na fu nu nekkoon am na lu jiitu woon ci suñu ñoo ngi woon ca bitim réew di daan suñu doole la tax nag ñu dagg suñu lépp ca bitim réew ñëw liggéeyal si yonent Yàlla Isaa kon ki ni liggéeyal xam nan kan ko ko xamul ñun xam nanu jëf ju ñaaw ji am man sama wax wax jii may wax manumaa weesu lii may wax ndax nit ku ne sàmm nga ca lën la dénk kullukum raain wa kullu raain masulun an raayatihi kon sàmm bu ne dina la laaj la nga doon sàmm nan nga ko yore woon te defe naa ni fii di jàmmalaayu Cambérène di jàmmalaayu Seydina Issa Rouhou wàllu sécurité ak leneen lu mu mel mu tegu ci samay responsabilité lu ni mel du am te duma jàkkaarloog àddina wax ak ñoom muy Sénégal ak bitim réew ñu déglu te dégg ma bu baax a baax ndax lu ma amal solo la te amal solo lool laa ni bokk na ci li taalum réew mooy dugg ci pas-pasu jàmbur te nag dugg nañ ci sunu pas-pas maam Seydou la ñu am moom la yaakaar bañ nañ ko sax ba waxkat ba dafa bind ci moom la nga xam ne ñun ñëpp ñoo ka ko nangulandoo ñu tiim ko naan ko gënal nga ne suñuy ndey gënal nga ne suñuy baay te yaa gën suñuy maam gënal nu ay junni defe naa kooku jaay na boppam ngir ànd ak yonent yàlla Isaa nga ñëw nag ba ci palaasam bii mu leer li la fii ndonte kër nga am xam nga ni sa kër tolluwul nii lu sa xel nëx nëx ak loo ñàkk-ñàkk xel boo xoolee fii xam ne bërëb la ci biir bërëb yi rawdatu riyaadul lil jinaani ku xool bërëb bi xam ni tedd na lool ku xool bërëb bi xam ne yànj na lool waaw ana ban nit ku nite mooy xool lu ni mel ba di ci dóor lii nii woowee lacrymogène ñu tekk fan noppi bi yàgg na amoon na ci biir koor gi ndax mag ñi naa fi naafile nañu ba pare ndax statut Cambérène bu leen ne statut euh, religieux la maanaam statut boobu la yore mooy euh, yëfi diine lan fiy dox boo nekkul ci daayira maanaam yaa ngi nekk ci course ga wala ca kaamil ba lii moom lan yare Cambérène mag ñi bu ñu jullee ba pare dañuy dem fi nga xamante ni lépp a dajaloo muy ku toogal fii Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam doon xalifaam dañuy jubal ba ca këram toog foofu di fa tudd yàlla subhaanahu wa taala bu nu tuddee yàlla ba pare dal di ñaanal réew mi ak àddina bi yépp defe naa ni ñooñu li ñuy def bu gënulee itamit bokk na ci lu gën nga fekk ñooñu fanu ne ñuy tudd yàlla nga sànni leen loola ba kenn ku ci ne yeggaleetoo turu yàlla ba nga doon tudd moo gi àtt kan moo ko àttan ba ñépp bi limaane su ah, suñuy kilifa nag ndax du ñuy noppiloo ndax ku ñu xam ci lenn li ñun duñu ko mës a nangu ba keroog yi dugg biir suuf di noppiloo noppi loowee nag dañoo am kilifa ñu daal di noppi moo tax may dégg ci benn benn ci doomu aadama yi léeg-léeg ba ci force de l'ordre yi tey dañ naan Cambérène amul kilifa ah kay nga am kilifa kilif teef mënta weesu ñu yar la ci diine waaye bu fekkee ni da ñëw ci dëkk bëgg xam kan mooy kilifa ga bul jaar ca paranteer ba jaaral ca bunta ba waaye boo jaaree ci paranteer ba mënoo xam kan mooy kilifa ga boo moytu la ay yat lan la fay génne wala leneen lu dul loolu wala ñu xëcc sa bopp boobu xottee ko xañña fa kon am na la nga xamante ne ni ak tayef la te lii may wax waxaluma ko kenn maa ngi koy waxal ngir sama tëraayu bàmmeel maa ngi koy wax itamit ngir saabay Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam yi ñi nga xam ni danoo fi di jooy sama bët yii nelawul booba ba léegi bi loolu amee ndax kenn ku ne la nga gëm yaa xam na mu mel sa xol kenn ku ne xoolal sa bopp rek sa ngëm-ngëm fi mu toll ca ka yaakaar ñun day nangu nan sax nga ñëw indi sa yi dóor lu ko suñuy kër mën nañ kaa muñ ndonte jaaduwul waaye nag ñëw fi nga xamante ne nii fu yaakaarlu la fu ne la àdduna di jóge moo xam katolik bi la moo xam murit bi tiijaan xaadir ñaseen maam Seydi universel la ñun ñu fee ne ñoo la ko mën a wax duñ ko bàkk ko mukk ndax sax amaana danga naan mooy maam Seydi ñi dul sax laayaan xanaa ñoo ko gën a gëm wala ñoo ko gën a xam wallaahi lazim du ngeen jóg ci di dégg ni boroom kaalaguñu gu ñu la weex feeñu na ma bismillah ah ñu ngi leen di jégalu ci dog dog bi nit amul lu dul kilifaam sunu kilifa moo fi ñëw léegi muy limaamu waaye juram moom la ñu denc moom itam fii muy doomu Seydina Issa Rouhou Laye moo am xibaar ba nga xam ni moom la ma doon xibaar wax dëgg yàlla dal na xel waaye xibaar boobu euh, doon na la nga xam ni dafay tàbbi ci biir ndaw ñi nga xam ni ñoo séqaloon ak force de l'ordre comme ni ma ko waxee ni ku bëgg la ci li nga xamante ne nii dox nan ko ci fan yu néew yii xëj na xibaar bi lanu génnewul woon mu ni daal mi ngi bëgg yëgal bépp ndaw Cambérène jiitu ci man sunu xalifa sunu yaakaar lool a tax ba sumboon li xew bali am di fi am ci Cambérène nee na daal loola ñoom dox nañu ca ay tànk tànk ya nga xamante ni incha allahu rabbi euh, li nu bëgg dinañ ko ca am bu soobee yàlla comme li kilifa di jariñ nee na mu ngi ñaan yàlla bépp ndaw Cambérène loo doon yëngal nga teg ko ci suuf te xam ni incha allahu jóg na nañu tàmbali nañu dox bi mat na ci ñaari semaine ak lu teg moom la may dey ni ma dañu yëkkatiwul woon message bi ci kaw kon xëñ na ci man la yàlla dogale message boobu ma yëkkati ko ci kaw ngir képp kuy ndaw Cambérène alaay lii rek moo la ñor mu jàmm mooy salaam lii la maam woote ci la ci la ko saxaaba yi wuysee maam yëpp gàddaay ñëw wuy si ko wuy si wun ko ngir xeex si dañ ko wuy si ngir gëm ko yaakaar ko kon nag ki nu gëm itamit te yaakaar ko mu nekkal fi bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam ñu koy xoole Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam jël na ci ay matuwaay yu mat sëkk ngir dox loolu nga xamante ne moo taxoon ñuy wax euh, yëngal ñaan ndaw ndaw dëkk bi yépp ñu daldi di arrêté loolu te xam ne incha allahu lépp dina dina baax waaye du yàq dara nag ci lii nga xam ni sama taraayu bàmmeel la te damay wét sama bàmmeel te kenn du ma fa fekk yonent yàlla Isaa mi alayhi salaam moo ma tax a jóg moom lay liggéeyal ba keroog may dugg biir suuf yaakaaruma kenn ku moom sama bakken bii moom laa ko jox tey ak ëllëg kon lu mën a am lii nga xamante ne mooy jëf ju ñaaw ji naqaree tudd ah faaw dañu koy wax ku ko sànni woon ci marché sax xanaa waa marché ba am nu nu demee ay nit a fa nekk ñaareel bi Cambérène ay mala dëkkunu fi sama maam mosu leen a tàmmal lii dëkk ba nga xamante ni titre foncier la defe dëkk boobu dëkk bu bu am liberté la ci côté yëpp kuy bëgg a jàmm ñoo la ko gën a bëgg waaye nag képp ka nga xamante ni nii nag seetlu woo wala bàyyi woo xel ki nu gëm kan la ba ngay jël lii nga xamante ni moo gën a yées nga ko sànni ah kooku mu wax dëgg yàlla ak yonante bi lépp la nga xamante ne nii bu ko laajee itamit bu bu taxawee ñu daal di ko ay def incha allah parce que dafa am la nga xam ni euh, ngëm pas-pas dafa foor ci doomu aadama kon pas-pas bu fekkee ni nit mënu kaa natt kenn ku ne na xool ci boppam rek. man sama bos laa xam keneen xam bosam keneen xam bosam ku ne ak li koy waxloo ku ne ak bi kay doxloo te degré yi duñu mus a bokk te du mus yem kon lii nga xamante ne nii mooy alerte bi nga xam ni séq nañ ko ak maam Seydi mi alayhi salaam moom la def moom laay wax nii mooy bis ni ki tey loolu dootu fi amati jeex na kenn dootul jóg jëlati lu mel ni lii lu bon lu yées lii di ko sànni ci bërëb bi nga xamante ni dafa yaakaarlu incha allahu rabbi mayatuñu benn doomu aadama ak foo mën a jóge nga jël lii di ko sànni maam Seydi maam Seydi méritoon na leneen lu dul lii la lu gën lii téeméer junni yoon sama maam du ñu nu koy tëkkaleel barki Seydina Limaamu yontu yàlla liggéey na lu rëy fii ci senegal ñii dañuy wax ñii noppi moo tax ñu si bëri danaa la laayante danoo yaru ah kay yaru nan waaye bu wax jotee di ñu dégg lii nga xamante ni nag moom laay wax ngeen jàllaleel ma ko ci fépp ci àddina nañu ko dégg maa ngi woo ki nga xamante ni mooy njiital réew mi di président Macky njiit la yàllaa ko teg ci bopp réew mi dañu koy fonkale loola waaye nag ñu ngi koy wax ni mu wax ak ay ñoñom ndax moo jiite réew mi na wax ak ay ñoñom ndax lu mu leen digal dinañ ko def na leen wax ni bërëbu Seydina Isaa bii du fu ni sànni ay lacrymogène yii na wax premier ministre am ni Amadou Ba ni ko bërëbu maam Seydi bii du lu ni sànni lu mel nii lii de buñ ko fi dëkkee sànni est-ce dugg bi ñu fi daan dugg ñoom di fi toog ndax dinañ fi mën a toogate bay ñaan ka nga xam ni bu yëf yi ne tëll da ngay daw ñëw sukk ci moom ñaan ko looy wut nga ñëw sukk ñaan ko boo gisee lu ni mel bul xaar doom di wax walla sët di wax kenn ku ne am nga droit pour wax violenté wuñu de violence amul ci doomu Cambérène ay nit ñu baax ay nit ñu ñu yar lañu dafa fekk ni nit boo jaaree te fa nga war a jaar di nga jot kilifa ga te boo jotee kilifa ga mu wax njabootam waaye boo jaaree feneen doo daj kilifa ga ñeneen ngay daj ñuy mbubboo ak kilifteef te fekk daanuwul sa ñoom kon nag li nga xamante ni moo nekk ci suñu dënn dina dina nu ko génne li nga xamante nii itam moonu tee nelaw ci fan yi yëpp tee nelaw képp ka nga xamante ne nii waxuma la laayal jullit nga nga gis image yi wallahi lazim waay boo waay lu ñaaw kan moo koy rafetal lu ñaaw lu ñaaw rek la tudd lu ñaaw nan lañ ko mën a wooye lu dul lu ñaaw lu ñaaw la tudd mani force de l'ordre yi lu ñu def lu ñaaw la kon bi ma woowee président Macky Sall ci loolu mu jël si ay mesures ci Cambérène ak ki nga xam ni mooy Amadou Ba di premier ministre am ak ki nga xamante ne nii mooy ministre de l'intérieur Antoine defe naa lu yëngu ci réew mi ñooñu la ñuy njëkk a pour ñu ñëw def li nga xamante ni moom la ñu war a def te message bi bëgg naa tey tey ñu jot ci ba yëf yi ñoom ñoom ñu jël. seen bopp amee ñëwal seen bopp dox lépp li nga xamante ni moom la war a dox muy médiation bi nga xam ni maanaam mooy tuubal yoon ci Yàlla saa mi ni lu bon lii du fi amati mukk ndax lii ñaaw na ba fa ñaaw yem. kon nag ñaareelu pàcc bi ma doon bëgg di dugg sëriñ bi bi mu ñëwee tënk na ko mooy li ma leen xibaar kon lu nu fiy guddal dootu fi amati lenn rek mooy li fi li ci des moom laa répété nit lu mu sax di ko wax di ko wax du ñàkk mën wax dafa fekk ni la muy wax da kaa ñor ndax Cambérène gii fi dindi woon bërëb bii Cambérène dootul existé ti ku koy jox ci war ma dañ koy classé comme yeneen dëkk yi bu nu warmaalee Seydina Issa wa tax kon ki tax ñu nii warmaal nag ah nan nu jàppale ci warma ma googu suñ ko mënul ah nan nu teggi bàyyi nu ñu téye maam maam doy nanu lii de laa xamoon ni laa am ci lu may wax di gën a feddliwaat waxu ki nga xam ni mooy kilifa dëkk bi pour ñu àndandoo gën a nekk benn jeunesse bi loolu nga xamante ne ni yëgu na ko mooy dox boobu nga xamante ne ñoom moom la ñuy dox neen bis ni ko tey nanu ko yëg ni ñoom jóg nanu ngir dox ki incha allahu rabbi te incha allah ñoom lu nu dox suñu borom euh, dina ko sottal ci kàttanu saa borom ndax du dox ci ay caaxaan. ndax kilifa du jékki na leen teel teel dégg teel rek daal di euh, jóg wala di damman kilifa balaa jóg dina saytu ba pare dooga a daal di nangam xam nga kon yëf yi mi ngi doog leer bis ni ki euh, tey képp ka nga xam ni. yaa ngi doon teewlu lii ñu doon def defuñu ko ngir ak yaradiku déedéet dafa fekk ni léeg-léeg di nga am aas ba nga xam ni doo too doo doo mën a dégg li mbedd mi ni muy ni muy raisonné léeg sama vingt quatre heures biti bi moo may jox information ba nga xam ni boo tëddee doo nelaw kon lépp li laay ni jàmbat yegsi na ci suñuy nopp te ñoom itam yeggaat na ci seeni nopp comme que jël nañ ci ay mesures ci mbir moomu kon amul lu dul euh, wax ne alhamdulilahi rabbil alamin tey euh, ñaan yàlla lii nga xam ni génn nañ ko fii ci ay kàddu moo xam mu néew ak mu bari du kàdduy yi lenn lu dul maanaam nit ak pas-pasam nit ak yaakaaram saa yoo ko laalee mooy laal nga ko moom nan nu fonkale sunu Cambérène nan nu fonkale sunu Cambérène comme ni leen fonke fii police sax ku fi toogee ba yenn heure yi billaay xale yi ñëw bu dog jotee ñu jox la ne la am dogal xamul na sax ni ndax da nga waram déet ñi gore nan wallaahi budul koor sax buñ fi toogee ba waxtu añ fekk leen fi dinañ yenu bool dem jox rek leen añ leen kon ñi ñu baax lan ñu tedd leen bàyyi la ay kenn wuyu siwu ko ci ak mbon ñëpp baax ñëpp ñëpp gore ay gor la bàyyi lay dajale fii ay gor méritoo wuñu yenn yi ñu ngi ñaan nag jàmm ci dëkk bi di ko ñaan ci réew mi ak bitim réew fépp fu doon tàkk yàlla na suñu borom fay ci barke maam Seydi li nga xamante ni moom lañ doon def yàlla na ko sunu boroom bi nangul boppam yàlla na ko maam Seydi alayhi salaam gërëmal boppam alayhi salaatu wasalaam kii nga xamante ni nag mooy sunu xalifa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu ngi leen di gërëm képp ku fi teew ci jotaay bi tey jéggalu ci yenn kàddu yi euh, dañu bëgg bëggoon a wax li nga xamante ni moom la doomi laayeen yi ak magi laayeen yi wax ñu dégg ko ci fan yi yëpp loolu rek moo nu dugal ci lii nga xamante ni te nag wareef la ci man ñoo bugg ndoon te kenn waxul dinaa ñëw wax ndax bàmmeel moo tax moo mën a fekk ci bàmmeel nag amul problème waaye man bàmmeel ba mu ma leeree ni man rek maa fee a ah kon lu may def dina leer loolu moo waral sama diggante ak maam di ëllëg bu ma jàkkaarloo moom bëgg naa siggi xool ko mënuma jërëjëf lii dong laa si jublu du du leneen kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.